alors euh, tàggat yaram Pafara dañ koy dooree ak euh, Ligue Pro am na un am na deux. waaw comme que dafa xaw a liw baa ñu tàggat yaram tuuti. pour réchauffer gars yi. ñu sol godaas ñun man man daal yi ma daal yi def tàggat yaram. xam naa cokk cokki rek. boo fi yëngatoo toogaat boo demee balaa ñuy éco banlieue saa waay ñu congelé waat. kon mu ngi mu ngi noonu réchauffement Mor sedd bee ko jàpp ba mu naan jaawale état ak l'été. <laughs> Cheikh ah sedd bi xol bi la jàpp <laughs> Cheikh Tidiane xol leen Cheikh Tidiane. mais Cheikh dem na fi ba Russie wala période boobu tàngaay la woon. fi mu toog di plein nii daa ko ci neexul. kenn du ko miin. acca <laughs> nga permettre comme Habib rejoindre. waaw ko dalal ko Habib ñu ngi lay nuyu. Habib yaa ngi <laughs> bi da da da ngay ree <laughs> kii mooy Fall boroom ñaari baat yi. ñetti Abdou la Dóor. Fatou fay naa bu baax di nuyu Cheikh Diane Modou ak euh, Pape Fara mm-hmm. ah, di nuyu itam euh, askanu banlieue bi yëpp. Mm. comme ni ñu koy defee dañuy bañ a segg comme li ngay wax rek. Mm. géejuwaay Pikine mu daj. banlieue ci laa bokk. jeex na mooy euh, li slogan bi ñun ñëpp ci lañ bokk. acca euh, Pape Fara ñu euh, dem ci tàggat yaram. doore ko ak ni ma ko waxee Ligue Pro. waaw Ligue bi seen ñaareelu bëccëg gannaaw ba nga xam ne nag joué woon nañu bëccëg bu njëkk bi tàmbaliwaat nañ nag niki ci weekend bi mu amoon nag jongante yu am solo yoo xam ne am nañ ci xam ne nag dafa xawoon a arrêté te li nu mel nekk lu am solo amoon na quelques résultats peut suñ ko mënee am lu mel ni ñaari tali ak euh, douane ñoom jot nañu football match bu neex ñaari ball ci benn la naka noonu tamit demb ñëpp ñu ngi dem xaar jaraaf euh, moom it mu daal di génn am victoire am bu njëkk gañee Dakar Sacré Cœur 1 bi à xam na dinañ ci dellusiwaat ci image ci xibaar yi di ñëw naka noonu AS Pikine tamit gannaaw ba mu amee nul ci njàmbur démb dalal na US Gorée gagné ko ñetti bal ci benn génération foot moom dafa match nul waaye Tëngéej miñ dem xaar. moom it nga xam ne def na jaloore dafa mujj témboo ak CNEPS excellence bu cees 0 bi partout Ligue 2 bi kon ni nga ko waxee foofu tamit am nañ ay jongante ISO GFC moo ko fekki gagné ko ñaari bal ci benn euh, GFC nag am nañu directeur sportif bu bees El Hadj Ousseynou Diouf ancien international moo fa ne ñoom tamit ba léegi seen coow seen biir seen président danoo tekki ndombal tànk mu indi coow yu bëree bëri ci seen biir équipe boobu EJ Fatick Sonacos ku ci benn la dugal yeneen Linguère moom dalal port gagné ko ñaari bal ci dara faate commencé ndànk ndànk. équipe bi tàngaguñ ah. mais mu ngi am bi waaw waaw bon mais équipe yu mag yi ñu doon xaar mu Tëngéej. waaw ah. Casa Sport eh, Jaraaf ñoom je pense que def nañ prestation bu baax. Hmm. mais quand même desagum na tàngaguñu bu baax bon Teungueth aussi on peut comprendre aussi euh, parce que ci exploit bi ñu jógee voyage bi tout ça. c'est pas le retour sur terre day xaw a jafe. Mhm. bon essentiel quand même soo leen seetaanee moi j'ai suivi le match soo leen xoolee di nga xam ne quand même. Euh, c'est l'équipe euh, sûre de ses forces. Mhm. tôt ou tard dina jël place bi nga xamee am na ko ci championnat bi. très bien alors euh, club euh, africain yi euh, Teungueth football club ak Jaraaf dafa mel ni ñu ngi nekk en compétition africaine. voilà waaw moom la Fara doon wax léegi mooy tënk seen qualification bi Ligue des champions muy mhm. euh, exploit boo xamee ni wax dëgg fa yàlla bu rëy la ci match boo xamee ni quand même c'était pas du tout évident euh, taw bu métti métti mooy li ñuy wax match guerrier moom la ñu def euh, dem ñefe ko ba qualifié. ko dem wax c'était pas évident. mais yow dafa mel ni xawoon nga ko gëm naan football la. <laughs> même jaraaf bi xam nga rek ñaari résultat yi yëpp aller bi yëpp gars yi dañoo yaakaaroon ni que ay match yu bon la mais bon man kay bon. avait dit que ya chance bi amoon na surtout jaraaf bi. Mhm. su njëkkee dugal rek day changer done bi te loolu moo am euh, mu njëkk dugal te nga tamit dem fële atmos. conditions atmosphériques yi tamit euh, jàppale ko. mu défendre grandement ses chances. ba dem tir au but tir nga xam à chaque fois euh, daf ñu doon c'était euh, daf ñu doon gàllankoor <laughs> mais bi pas nag ñun ñoo ci bi pas moom ñun ñun ñoo génn je pense que vraiment c'est à féliciter te surtout que. qualification boobu nag daf leen jox manne financière bu solo. xaalis bu bëri day dugg pratiquement 350 de francs ah. CFA. Hmm. uniquement ci qualification ci phase de poule yi. je ah. pense que loolu quand même. Euh, jar na maye quand même. jar na rayante bu baax a baax. a wow ak coronavirus bi xaw a <laughs> wow sa la def. réew mi dafa ci jot ñetti téeméer ak juróom fukki millions. <laughs> Eh, ci wàllu football te nga jëf see man man nag li ma leen wax rek mooy objectif bi. bi du rek qualifié c'est-à-dire sori la au moins jàll ci pàcc bu njëkk bi. mais pour euh, difficile nag waaw mais ba tey mën na nekk. mën na nekk Sénégal moom wax dëgg yàlla. <laughs> bu ko gëmee mu nekk. Ah. ñaareel bi mooy fare ñu ñëw ci performance des joueurs des joueurs sénégalais. Euh, uh-huh, mu nekk lu am solo mais lu ma ci dem yokk rek Fatick mm-hmm. fukki at ak juróom-ñaar wala juróom-benn. Mm-hmm. club bu Sénégal mënutawul dugg ci phase de poule yi te ngeen ñëw. Mm-hmm. bi mooy njëkk mu bokk ci. ndax moom bële passé dañ na ko woon bokk ci mu ne parewul woon financièrement ak yëpp bokkul. mu ñëw bokk daal pour un court coup de maître euh, performance yi Modou Fall mun nañ ci jàpp Boulaye Dia yaakaar naa ne attraction bi ci week-end bi moom la mhm. doomu Sénégal boobu fi mu ne moo nekk ko meilleur buteur ak Kylian Mbappé doublé la def daal di koy dugal vraiment mu ngi ci équipe nationale bi un mhm. très bon joueur que kooku war nañu mun a am ci yaakaar ci moom bu baax. meilleur buteur ak ñaata bi douze bi ah. fukk ak ñaar ci bii la dugal fukk bal la lakk yoon ak ñaar lakk caax yi waaw ah, jàmbaar la def <laughs> mais ba duñ ko catu borom clean sheet bi temps yi sonal na de Edouard Mendy <laughs> xale yi laa gis ñu koy wax nag nee nañ nee nañ dañ koo catu parce que dañoo topp Edouard naan ko clean sheet ñoom Fatou Ndiaye taxawee fii su Pape Fara waxee mooy xorom naan ko lu clean sheet. <laughs> léegi nag moo raw tamit. <laughs> Ah, problème bi mais xam nga ne il faut qu'on le laisse tranquille kat c'est normal ah. mais c'est problème mooy est-ce qu'il va continuer à ci deuxième partie saison bi loolu. ca la mm. parce que foofu ni mu parce que ah, ay club anglais soxla nañ ko y a des italiens aussi waaw waaw club yu bëri ñu ngi koy ci rang bi moo tax c'est pas sûr que. Euh, balaa marché bi tëj. Mm-hmm. fin janvier mu des Reims ba léegi. Mm-hmm. Euh, bon faudra s'attendre à que mu change de club mais quand même aussi ça aurait été bien saison bi. quand même parce que jéem 12 buts championnat bi peut euh, mën na dem 24. oui na doon nekk total bu am solo ci moom quand même. ngi noonu Sadio Mané. ñëpp mm. moom kenn doon ko présenté double la def. ci seen match FA Cup bi moom tamit mu ngi wéy di wane boppam gannaaw ba nga xam ne daan nay commencé waate di dugal ay bi mbay Diagne tamit euh, kenn du ko fàtte moom it euh, mu ngi nekk fële nag ca championnat bu Belgique moom tamit dugal na bii bu gën a gaaw foofu ca championnat bi Mortal mu ngi koy wax léegi naka noonu Famara jéeju tamit euh, wane na boppam jàlloo Diallo fële nga xam ne moom la rek de Strasbourg moom tamit wane na boppam bu baax a baax mu ngay wëy di wane boppam bu baax a baax moom tamit xam nga gëj na ci équipe nationale bi mhm. waaye ba léegi rek gannaaw dam bu métti bu mu amoon muy continuer di wane taxawaayam euh, Idrissa Gana Gueye seen match bi pa bien acca ñu dem ci beneen ponk Cheikh Tidiane mooy présidence de la CAF mhm. xara waay ah, présidence CAF am nga waa CAF doomu Sénégal bi maître Augustin Senghor ak Jacques Anouma ñoom juróom la ñu woon waaye bi ñu déposé ñoom ñaar rek lañ validé seen candidature hmm. waaye kon maa di finalement mu jëwuñ ko validé kan. Madi Touré nekkul woon bokkul Madi pour fédération sénégalaise fédération bi la woon. mais CAF mooy bu gën a mag. ci d'accord voilà bii passé dañ koo waxtaane woon moo tax. xam ne moom dafa feccoo fédération waaw waaw ah, bii nag ñoom Augustin dañoo dem football bu Afrique. Mhm. moom ak Jacques Anouma di doomu Côte d'Ivoire bi ñoom ñaar lañu validé. Mhm. waaye nag euh, doomu Mauritanie bi dafa dugal euh, beneen mbir ci biir nag waa FIFA léegi nag ñoom il faut ñu xool ci bu baax a baax mbir mi fak lay mujj budget tamit ñoom it ci wàllu validation bi ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci CAF dañuy bokk tamit ay membre FIFA mhm. te ak coow yi nga xam ne ñoom am na fi je crois que beneen feuilleton euh, moom dafa mhm. que je pense que c'était le jeudi jeudi soir le mhm. CAF génne communiqué validé candidature Augustin ak Anouma euh, yeneen ñaari yi ne seen kandi muy euh, Mostepe ak Yahya seen candidature recevable na waaye foog ñu saytuwaat ko mais après ñu teg ci quelques heures après ñu génnewaat beneen communiqué boo xamee ni FIFA moom moo leen wax ni no no du ñoom ñooy valider mais FIFA mooy valider euh, faut dire que daa mel ni suñu organisation boobu daal daanaka indépendance bi ñuy wax dafa mel ni amu ko. dafa waaw dafa amu ko mel ni léegi FIFA moom mooy décider. Mhm. te FIFA nag ñu lu tax ñuy décider parce que président CAF. futur vice-président FIFA lay doon te bon quand même euh, en quelques heures changement yooyu yëpp quand même tamit day xaw a tey xel mhm. wane ni daal euh, doxalinu FIFA ak mel ni am nañ euh, candidat ci suuf bon moom kay loolu sax du ñàkk ne aussi mais <laughs> loolu lu ci doy waar mooy lu tax kaaf amul sañ sañu indépendance décider ñan ñooy doon candidat sans aval FIFA parce que loolu moom je pense pas que lu mel noonu FIFA ñeme na ko def ci euh, Union européenne euh, UEFA UEFA quand wala sax euh, comme bool fële ci Amérique du Sud mm. mais bon peut-être que ñun nag la sunu doole toll foofu moom moo tax <laughs> ñu ñuy womat <laughs> <laughs> suñu doole tollu <laughs> foofu. fukki mars la ñu fas yéene amal yooyu la élection. on croise les doigts pour maître Augustin Senghor. ah bon s'il passe parce que. <laughs> ba validation des na ba léegi parce que FIFA mooy. bon mais en principe je pense pas que dina am problème. mais mais mais xam dans ce feuilleton là tamit. Euh, on n'est plus sûr de rien. Mm-hmm. moo tax daal la ñuy toog seetaan. mais espérons que maître Augustin Senghor ñu ñu valider candidature am. am nañ ci yaakaar basket bi Pafara dellu si waat ñu tàmbaliwaat championnat bi waaye euh, respecté li nga xam te ni moo di protocole sanitaire yeeg mesure barrière yi. dëgg la nga basket bi nag ay bés bële lañ jàppoon ne dina tàmbaliwaat waaye nag dañ koo mujjoon dàq ndax dafa am benn arbitre boo xam ne dafa wàññeeku woon ci ñoom waaye ci weekend bi nag tàmbali nañ waat seen i jongante waaye gis nañ ne à huis clos dem jouer équipe yi respecté nañu lépp loo xam ne ci mesure naka noonu ci organisation bi ci stade bi bu ñu ñëwee takk nañu masque def nañ ay distanciation lii nu mel def nañ ko gannaaw sax fukki weer yoo xam ne joué wuñu laaj nañ sax directeur technique bi wax na ci niveau bi ne c'est assez bon xaw na techniciens yi tamit dikk nañ ci waaye ak contexte coronavirus bi danoo nag defaraat ay jooyanti ci programmation li 10 heures ci suba la ñuy commencé basket jëm ngoon pour nit ñi ak couvre-feu beeg li nu mel daal di ñëw. Mm. kon daal tàggat yaram commencé war na tàmbali ndànk-ndànk ci sénégalais te gars yi namoon nañ basket. comme ni nga ko waxee rek namoon nañu ko bon Covid bi tamit sonal nañu. Euh, Tafa Gaye sax xam naa ni ñu ngi koy masaw parce que moom. yàggul ñëpp si. parce que affaire yi daf ko daloon Égypte. Euh, mu des fa mais ñu ngi sant yàlla. comme que mm. ñëw na ba mën a ñëw di continuer di wéyal liggéeyam. alhamdulilah mais quand même ça une bonne chose championnat bi commencé mais xam naa ne dina jafe nag. parce que respect protocole bi xam <laughs> ni ñu koy waxee nii. <laughs> dinañ dinañu jéem ñu jéem mais bon. carrément pour le moment daal basket ak football bi daal génn nañ ci wala lamb ji daal ñoom ñoo si dese. waaw lamb ji moom <laughs> keroog. lamb pour bientôt. <laughs> gis nañu seen euh, plateau spécial. bi ñu leen Pape dalal. pour bientôt waaye est-ce que. huis clos bi gars yi di def. ñoom nee nañu nee pour mu am fa dina du yomb de. sport populaire la aussi dafay soxla dafay soxla day soxla public. ah mais de promoteur bi tamit promoteur bi tëgg. promoteur bi tëgg mais am na yeneen formule Cheikh Tidiane. non am na ah, non bul ma wax bul ma wax bul view de. <laughs> maa ngi dégg sax xaw ma Balla Gaye la xaw ma kenn ci mbir maa ngi koy dégg mu naan. promoteur bi su tëggee est-ce que tamit euh, nguur gi xaw ma du si jàpp remboursé ko pour billet stade beeg yooyu xam nga ni yooyu <laughs> ay argument yoo xam ne day jàll mm-hmm. te ah bon en tout cas du yomb du yomb foog foog mu am ay sacrifice yu am solo pour gars yi bëri mais bon il faut trouver une solution quel que soit alpha parce que mbëri tamit suñu bëggee bëri ñoom tamit euh, ñu wàññi seen i cachet yi loolu aussi solution la <laughs> xam naa dañ ne la staff beeg yu ni mel ah, ah, mais. waaw waaw mais mais également mais la ah Serigne si tamit wàññi. mais wuy ma wàññi li ñuy laaj kon chaîne la ah. Modou lépp gën saison blanche. waaw moo gën waaw ñàkk bëre moom. <laughs> Banaaru laay loolu moom vraiment lu cachet bi xaw a wàññeeku wàññeeku di nga ci mën a faj yenn soxla yi parce que ne xam ne dëkk bi daa métti te ñu. daaw bi dafa métti ba pare xam nga mbëri macha dafa xawoon am problème sax. c'est ça ñoom dañoo yaatu gannaaw gis nañ mujj ñoo xam nit yu yaatu lañ Balla Gaye ay Modou Lo dañuy dundal ay doomu aadama yu rek moo ñooñu soxla di liggéey dañuy rang seen kër ah. euh, ay dañoo yaatu gannaaw et puis ay nit yu yaatu lañu donc il faut également jàpp ci bu dul sax euh, làmb mooy sunu cosaan donc bu nu bàyyee mbas mi rek mu nuy dina xaw a metti ci ñun mm-hmm. euh, mu ngi noonu tàggat yaram bi fara je crois que ngay jeexale je pense que mat na yaram bi tàng na waaw kii de réchauffé tuuti Cheikh <laughs> moom yaram bi daa koo jëli Pape Samba Cheikh Tidiane dafa pinge cere bi <laughs> Cheikh boo dëkkoon Kool Noor xoolal dafa pinge cere yi mi ngi <laughs> dafa sedd il a raison Cheikh dafa fi nga ay sa ah, instant yi wax ji ci boole benn sedd bi nga grippe rek gars yi tam ñu <laughs> quarantaine la jàpp ne da ngaa corona <laughs> symptômes yi ñoo niroo grippe ñu quarantaine la dëkkee naan kafe leen ko solution Pape soo ko utul solution Cheikh dina xëy ñëw ba si bunt bi bu gis plateau bi delluwaat dafa ragal sedd jërëjëf Pape Fara li nga indi ci tàggat yaram am na solo buntu jógee ñu dem ci banlieue bi ànd ak Habib écho de la banlieue léegi léegi séeréer séeréer mënu ma laal